ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir ngir xeex jàngoro yi coronavirus ci réew bu Sénégal nag ba mu tàmbalee ba léegi Sénégal am kaawum bu njëkk waaye tam ñu daal di tàmbali li nga xam ne moom moo di couvre-feu bi loolu lee di yenn saa yi ay jafe ci ñi nga xam ne ni mën nañ leen a wax ne ay nit ñu xaw a néew doole lañu ñooñu le nag ñëpp daal di ci tàmbali di xalaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di dongoy daara yi nga xam ne ñu daan yore seen pot dem di yalwaan yi ba tax ay ndimbal di bàyyi ko fu nekk ci biir réew bu Sénégal jamono ji di dikk ci biir daara yi ndimbal loolu le nag fii ci dëkk bu sell bi di Touba am kuréel goo xam ne nii dafa lëkkale daara yi ñu koy wax rabitatul madaarisul quraaniya jot nañ ay ndimbal yu bàyyeekoo fu nekk tey jii nag ñu jot li nga xam ne nii moom moo di délégation bu bàyyeekoo ci mbooloo mu ñuy wax jabhatul muridiya ngir ñu indi leen li nga xam ne nii moom moo di ay don ñu jàpp ne tam solidarité buy am xale bu ndaw si daara gisul yaay gisul baay ku bëgg a dimbali ngir yàlla mën ngaa tàmbale si moom ndax kenn gënu ko soxla kon solidarité ñu fas yéene see ànd ak mbokki daara yi fas yéene see ànd ak mboolem ñu ko yitewoo di ñaan itam ñu yilif réew mi ñu joxe ndimbal li ñu tàmbalee si daara yi. ki di koordinateur mbooloo mi nag yëkkati ay kàddu di wax initiative bi li nga tax a def loo. ngénte ak dëj. ba àdduna tukki du fi jóg. te ñaar yooyu. bu fa daara jógee. si réew mi dootu mën a am. gannaaw lu mun mënta ñàkk la sim réew. réewum jullit ñu jàpp ne jullit bu nekk war na see jàpp ba loolee sax loolu moo tax mbooloo mi aljabatul muridiya ne seen man-man ak seen xam-xam ak seen bëgg-bëgg na si daara jiitu ginnaaw kàddoom yooyu la sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne moom moo jiite rabitatul madaarisul quraan ya yëkkati na ay kàddu di fësal satisfaction boo xamante ne nii am na ko ci ni nga xam ne noonu la ñu taxawoo yenn daara yi ne it mbokki taalibe yu baree baree bari sëñ Cheikh Abdou Bali sëñ Abdou Samat mu sëriñ Soaybu eh, Touba ci kanam sëñ Souley Diagne ba ci don bi nga xam ne euh, maître Madické Niang joxoon na ko gouverneur ci comité régional bi euh, amoon na ca 60 sacs yu ñu joxoon daara ji ak la mu àndal euh, ak lii ngeen jëf muy jëf ju am solo soo demoon ba njaareem tey jii def nañu ay jëf yu am solo yoo xam ne ñoom daanaka bi yëf yi amee rek xanaa bis bu njëkk ba bi couvre-feu bi amee bis bu njëkk ba daa mel ne da leen a bett waaye ca suba sa rek. ginnaaw moom sëriñ Khady jaxate nag di yëkkati ay kàddu di fësal mesures yi nga xamante ne nii état bu Sénégal mi ngi koy waaj a jël waaye tam naka la ci war a taxawee ak mesures yooyu tam di joxe ay xalaat yoo xam ne nii buñ ko ci defee mën naa andi ay saafara di leen ca lancé appel it ne gunge leen ci luñ mën a tooge ca biir daara ya la daara gën a bëgg ci accompagner accompagner leen ñu delloo gone yi ndax fi ñu toll nii am na fond bu ñu dégagé wax ne dañoo bëgg sëñ daara bu bëgg a delloo say gone ñu organiser la karawaan wut oto def ca carburant ñu yóbbu gone ya man dama leen ne ñama ci recevoir oon dama leen ne fon boobee ñu jël te di ko bëgg a def carburant buy delloo gone yi nañ ko dawal ci reer bi nañ ko dawal ci reer bi <laughs> moo gën ñu di ko def carburant muy delloo te sax delloo moom ndax doo xam fañ jëm danañ fekk feebaram déet xaw ma kon delloo moom du du xalaat ñii moom kenn demandé wu ci delloo lii ngeen def lañ demandé mooy ku leen jàppale ci luñ mën a taxawoo xale yi kon loolu it appel bu jëm ci état la ñu di leen ko bàyyiloo xel covid 19 di jàngoro ji nga xam ne nii lëmbe na àdduna wërngal këpp jamono ji kenn ku nekk di xool ban anam nga ciy mën a fagaroo waaye itam naka la ñuy mën a xeexee ba askan wi daal di ciy mucc loolu li tax na nag Sénégal doon benn bopp jamono ji ngir lëkkaloo daal di xeex li nga xam ne moom moo di euh, coronavirus mu daal di génn ci réew bu Sénégal